jamono ju nek dina am mu mengol ndax ñom seen plan moy gannaaw buñ mu tégelo lañu gawantu ci seen dossier bi ñu mujjé génne nga xam ne moo ci gëna ñak solo nag danaka dossier ñu musa am ak man ci tribunal yépp ben du ci dëgg ngeen jéggal ma ci carte bi ay fen yi la ay montage yo xamni Macky Sall ak nguuram ñoko monté rek ngir tirimal nit yaq deram faagaagal ko tejj ko ak yu mel noonu waaye bii ñu mujjee génn moo ci gën a ñàkk solo mooy amuñu lu ñuy wax amuñu dara lu ñuy wax lu dul euh, corruption de jeunesse ci koo xam ne nee na nee nga danga koo ne dafa siif amit dëkk bi yëpp jël say nit yu sante ñu wen wër fu ne di wax ngir yàq ko yàq njabootam yàq réputation ci politique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 ndax dafa di ay délits yu ñàkk fayda yoo xam ne amatul benn dëkk bu bu bu bu bu faydaw tuuti boo xam ne di fa fekk wax ju mel noonu di fa fekk genre délit yu mel noonu ñoom ñu ne ca loolu la ñuy langaam ma xam ne nag ci lañ ma yéegal bi pa la ñuy waaj buñ demee ba teg sa loxo ci man mooy fexe ba sëf ma lu nekk amaana dañ ne touriste amaana dañ ne FDC la bokk amaana dañ ne eh, daroon waaja coup d'état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

ñom ak sen état ak sen renseignement généraux ak sen gendarmerie sen police lool yeb boo teunké ak lenn ci seen magistrature nga xamné ne da leen dañoo los gombaanu and ak ñom ñoo ñëpp bo len dajalé nañ len won bu soobee yalla bu dé fa ñu bëgg jëm lañu jëm ci semaine yi ñu ñëw ci wéré yi di ñëw nañ len won ni ñoo len ëpp xel bu soobee yalla motax mané ci li ñuy dëgmal muy élection yi jëm ñoom lañ def tout pour gàllankoor sama candidature malheureusement Ousmane Sonko ndax Macky Sall da ko wat wax ko ay nit ñoo xamné ay kilifa lañ ñooñu xibaaré mako kër ak bi mu annoncé barki dem modjay bi mu annoncé ni mom du nek candidat la waxtaan ak ñooñu waatal leen ne Ousmane Sonko du nek candidat ta japp na ni lu ko rek mako tek japp na ni mako xagn troisième candidature japp na ni ma ma won se africain yi ak sénégalais yi ak aduna bi yëpp lan moy xar Macky Sall deug deug deug lool nak la mo la munul baal te du ma ko baal bi yëpp abadan mom ak ñi ko wër bis bu dañu reñoo ko ba xaaju guddi fofu non mermos kon waat na ni man duma doon candidat dajale na ay magistrat cour suprême ba conseil constitutionnel ba jox leen digal ba noppi ci loola te buñ ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp ndax nañ ko defee ci anam goo xam ne àdduna yëpp dina xam ni Sénégal ridiculiser nañ ko ci fañay jaare ñoom pour tere ki ñëpp jàpp ni mooy chef de l'opposition pour mu bañ a nekk candidat buñ ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp mu téye conseil constitutionnel ci loxom Daouda Badio wala ngeen jégal ma ci Daouda Badio bi ndax dama amoon collègue bu nekk importe de ba Daouda Badio waaye Badio Camara laa bëgg a wax mu téye ko ci loxoom waaye yemul ci moom dina am ñooñu nag boñ ci toll dinañu am lu ñu jëfe bu xam ne dina yem Sénégal yëpp waaye yemul ci moom ndax Sénégal justice bi moo tëree noo xam ne nooy gën a yéegee rek mu gën a doy waar nooy gën a yéene rek mu gën a fënax noonu la def ak cour suprême ba lem bëgg foofu dina ko am soo wàccee nag ci juridiction yu yi bëri na tey ay magistrat yoo xam ne ña bañ ba léegi waaye malheureusement bëri na xam na ci tam ñoo xam ne xam na fu ñu mën a jaar ñoom li may wax ne tekkiwul ni soo demee fu mel ni cour suprême la fa nekk yépp dafa fa nax déedéet am na fa ay magistrat yu di am na fa ñoo xam ne ñu ngi bañ ba tey waaye euh, Macky teg na fa ay nitam yoo xam ni depuis premier président ba kenn nag keneen boo ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp ñoom lay sant ne leen dossier bi gaaw gaaw leen defal ma ko dossier bi na ngeen ci àttee nii te lay demee comme nag loolu xam nañ ko te xam ko xam gu wér day jaadu bu dee njiit la te ngeen wóolu ma ba jiital ma ma jëfandikoo sama xel ñoom ñu jëfandikoo seen doole ak seeni magistrat man ma jëfandikoo sama xel xel googu nag moo ma andi ci moo xalaat ci stratégie ta fan yi yëpp depuis bu ma nekk Ziguinchor ba ni ma ñëwee Ndakaaru ni daanaka mois de mai mois de juin ba juillet maa ngi xalaat di déglu it yi ak sympathisants yi ma dégg lu baree bari bari ñu naan ñun amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan Z ñun benn candidat rek lañu am te day jàll par force muy Ousmane Sonko loolu nag dinaa leen bàyyi ngeen continuer di ko wax ndax baax na ci stratégie baax na ci bataille psychologique bi waaye duñ ko jëfee ndax buñ ko jëfee rek sànq projet bi duñ ko jëfee ndax buñ ko jëfee sànq projet bi may fàttali ni projet bi boo ñu dooree politique ba léegi yéen Sénégalais projet la wax laa waxtaan ak yéen waxuma yéen nit de mosuma leen ne je la seule constante ñi ci des ñëpp ay variante lañ mosuma leen ne su man c'est le néant moo tax nun dañu am amal solo rek mooy nañu jàllale projet bi buñ ko jàllalee ba noppi ñu dajewaat ñun de l'autre côté. xol nu ñuy tojee suñu bopp jël ak nu ñuy defaree réew mi dina am fu ñuy toll projet bi day soxla passeur passeur rek lay soxla kon ñun suñu demee dem dem dem dem ba gis ni frontière am na def nañu benn barrière def ci seen grillage dañuy soxla beneen stratégie boo xam ni pour passage rek la waaye tekkiwul ni projet bi tayle nañ ko wala joxe nañ ko wala saraxé nañ ko dédé kon projet bi moy suñu yitté ñun projet bi faaw mu jall da du jall 2029 du jall 2034 du jall du jall projet bi dañoo bëgg mu jall ci 2024 bi ci kattanu yalla ak bëgg-bëgg sénégalais yi tax Ousmane Sonko amna solo lol ci projet bi am ñani sax dañ naan Sonko moy projet bi projet moy Sonko waye projet bi Ousmane Sonko du ci ko xam ya, ko indispensable la ba bu fi bu fi ñaké rek projet bi taxaw bu loolu amone rek ma xam échoué nañ ndax loolu mo andi échec gu ñu bëré bëré bëri moy li ñuy tabax yëpp dañ koy tabax ñom ci sen bop ñom ci sen tour sen tour sen daraja loolu amul ci Pastef te yàgg nañ ko wax yamu ci discours dañ koy jëf ñëpp gis ko mënoon nañ ne dañuy nekk candidat par force bu ñu dul candidat li dina fi am la dina fi am dama ni man Ousmane Sonko bu nek nekk candidat danañu fexé ba projet bi jallalé ab wala ay candidat loolu mom moy suñu préoccupation bu njëkk ci liggéey bobu nak wala ci xalaat bobu la japp ni buñ ci tollé ba wara di dem uti parrainage buñ ci tollé buñ ma joxé fiche de parrainage mo uti parrainage ñëpp daanaka soxla ma ko wut sax ndax fi ma toog su ma parrainage ja bëgg wa Tamba dinañ jóge Tamba ñëw pare wa waa Matam def ko wa Kidira def ko wa ndak wax ma wa Dakar keneen ñi nga xamné ne nañ fi waye buñ ci tollé buñ ñu joxé dañu dem uti parrainage buñ ñu ko joxul it dinañu libéré même buñ ñu ko joxe sax dinañu fexe ba am ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañoo ànd ak ñun nekk ci parti bi di membre Pastef yu fës yu ñëpp xam ñii di suñuy allié ñëpp xam leen ci ñu ànd ñoom ci loyauté ak discipline dinañ ci tànn ñoo xam ne daañ lañ ne dem leen jëli ay parrainage ay fiche ci biir parti bi ngeen dem uti parrainage wala ngeen déglu ñu waaye noone it noone dinañu seet ci suñuy alliés ñi nga xam ne ànd nañu ak ñoom te déclaré wuñu candidature pour demal seen bopp ba fi ñuy wax ni te amaana peut-être duñ ko déclaré ba keroog ñu toll ci war a dugg ci parrainage bi ndax ñi ko déclaré te di suñuy alliés am na ñu ko defagum te am nañu courtoisie ak yéege gu doy woo nañ ma ci téléphone ne ma ah ñun de dañoo décider nekk candidat ma ne loolu lu baax la parce que suñu ànd ci biir Yewwi Askan Wi loolu la ñu waxtaanoon dañuy dem ànd ci élection locale ànd ci élection législative parce que élection yi élection raw gàddu la da ngeen di boole dajale waaye bu ñu eggee élection présidentielle ñu fi nekk ñëpp ay leader lañu ko ci xool boppam ba yaakaar ni bëgg nga ko te mën nga ko am nga sañ-sañu dem wut sa candidature teewul nag dañuy bàyyi yeewi askan wi mu nekk cadre boo xam ne peut bu ñu mutualiser dajale suñuy doole dina gën a yombal supervision élection yi mu am ñoo xam ne ba léegi it décidé wu ñu nekk candidat yi ñu décidé ànd ak ñun ànd ak man en tant que candidat fas yéene sax taxawal coalition boo xam ne day day doon coalition wu Sonko président ma ne ci ñooñu ci biir ñooñu buñ ci tollee gannaaw ñi ñi nga xam ne ci parti bi la bokk moo xam ñett la doon wala juróom wala fukk nga xam dañ leen naan dem leen uti fiche nañu seet tam ci suñuy alliés ñi ñu ànd ak boobu léegi ñoo xam ne dañ leen naan yéen it dem leen ngeen jël fiche parrainage muy suñu alliés yi ñu gën a jege ñoo xam ne. tey ñu ngi ci benn cadre di jëflante di liggéey ñooñu dañ leen wax ñoom it ñu dem uti fiche de parrainage ñu téye ba nga xam ne dinañu am option yu bari parce que dañuy wax ne jënax boo bëggee mucc jënax bu bëggee mucc day bari baax tubaab ne on ne met pas tous ses œufs dans le même doo jël soo amee ay nen doo boole nen yépp ci benn benn benn benn ndax bu pañe ba daanoo rek dootoo dese nen lii da nga dugal ci mbuus mi yi nga dugal ci pañe bi lii nga dugal leen ci bool bi loolu stratégie boobu lañu bëgg a reproduire mooy nañu fexe ba ñuy jël fiche bari ñu fexe ba ci ñooñu jël fiche mu am ci ñenn ñu am parrainage bu mat bu mucc ayib loolu mooy suñu stratégie buñ leen ko waxee nag bu ñu dem uti bu boobaa bu dee man bàyyi nañ ma ma dem ut sama fiche pare euh, sama parrainage déposé ñoom it dañuy déposé ñi am ci ñoom ñi jot a am ci parrainage ci ñoom bu dee tere nañ ma man bu dee tere nañ ma du tey dinañu am nu mu tuuti tuuti tuuti ñaar wala ñett wala ñeent wala juróom ci ñooñu ñuy jàll te loolu bokk la ñi nga xam ne suñu allié lañu suñuy allié lañu peut ñoom teel nañu décret lañuy nekk candidat waaye suñuy xale lañu lu mel ni euh, soxna ay ak ñeneen ak ñeneen su may lim dinaa juum nga xam ne suñuy xale lañ te ñëpp xam ko ñu bokk ci yeewi askan bi bu ko defee bu ñu génnee ci mbirmi mi ba dem conseil constitutionnel ba conseil constitutionnel pare li def ci parrainage ci contrôle juridique des dossiers bu ñu génnee ci lool ba ñu ne ñu am nañu ay candidat ñu seet ndax kenn moo jàll ci ñun wala ñaar wala ñett wala ñent ba juróom waaye l'essentiel na ñu am ay candidat bëgguma sax ñu am benn candidat ma bëggu ñu am ay candidat bu ñu yàlla may lool nag ngeen xam ni ñoom seen pexe na sax na bu ma yemoon rek ci man ne man rek may nekk candidat ndax daloon na ñenn ñi 2019 bu ma yemoon ci ne man rek kay nekk candidat bis buñ ma jekkoo rek projet bi yëpp ñàkk candidat boobaa dañuy obligé génn ci projet bi dem seeti feneen fu ñuy jàppale ji waaye bu ñu fexe ba jàllale ay candidature donte jàpp nañu candidature Ousmane Sonko projet bi mucc na ci wàllu candidature te bu muccee ci wàllu candidature mucc ci boppam ndax bu soobee yàlla bu ñu amee candidat dem élection gagné au premier tour muy Ousmane Sonko muy beneen candidat buñ ko amee incha rabbi gagné au premier tour kon lii mooy stratégie mu des nag bu ñu demee ba jàll ñu ne ah yàlla may nañ ñu am ñaari candidat yàlla may nañ ñu am ñetti candidat ñeenti candidat di ma ne naka laay doxalee mbir mi dama waxtaan ak ñi ñu ko seqal ñëpp ñenn ñi waxtaan na ak ñoom waxtaan yu xóot ñu ne ma ñun ñëpp doyloo nañ da yow lépp teg nañ ko sa buñ ci tollee foo joxoñ foofu la loo décidé noonu la bu dee sa candidature jàll na wax ci jeex na ñun ñëpp dañuy désister ñëw taxaw sa gannaaw ñu dem defi campagne gañe bu dee na sa candidature jàllul bàyyi nañ la yow nga xool nga seet nooy tànnee ki nga tànn rek ñu xam ni kook la ma leen ci gërëm leen sant ñoom ñëpp ndax doolu confiance la estime la te du lu tuuti ci donc bu ñu yàlla maye ba ñu jàll ba am ay candidat yu ñaari schéma moo mun te dinaa jël décision diggante ñaari schéma yooyu te bu ci nekk dinaa def ay vidéo teg ba nga xam ne buñ ci tollee su ma leen ne lii mooy choix bi rek yéen samay mbokk sénégalais dinañ leen tegal vidéo bi mu ngeen ko bu yéen ñëpp xam lan mooy décision bi kon ñaari possibilité moo am bi njëkk bi mooy ye ma tànn benn candidat yeneen candidat yëpp désisté ñëw ne kooku mooy suñu candidat ñu jàppale ko ñëpp taxaw ci gannaawam ñu dem defi campagne campagne bi nag ñu teg ko ci programme bi nga xam ne mooy sama programme bi ma liggéey man ak cadre parti bi ñu ne fii ñu ne bitim réew ñu liggéey ko muy programme Sonko 2024 Sonko président 2024 di programme boo xam ne du lu bees ndax mooyoon programme mu deux mille dix neuf bi dañ ko toggaat rek defaraat ko actualiser ko tugal ci loo xam ne lu koy gën a jëmmal la ak lu koy gën a taaral ak lu koy gën a matale loolu mooy doon programme bi quel que soit le candidat ñu ànd ñëpp bu dee ma ne kii mooy candidat bi ñeneen ñëpp ma ne leen léegi da ngeen di teggi seen loxo daal di ñëw. jàpp ci gannaaw candidat bi ñu ànd liggéey ñaareelu possibilité bi mooy ma bàyyi ñu am candidat yu bari waaye ci biir candidat yooyu dinaa def sama déclaration wax ci Sénégal yëpp ni kii mooy candidat bi kii lañu war woteel kii mooy candidat bi mooy candidat projet bi moom lañu war a woteel ñeneen ñëpp nag candidat projet bi lañu waaye dañuy ñëw jàpp dooleel candidat bi sans pour autant ñu bàyyi seen candidature di nga ma ne ah loolu est-ce que du andi confusion est-ce que loolu du tax ñëw ñàkk ay voix lu mën a nekk la waaye def nañ fi combinaison yu gën a compliqué yooyu ndax bi ñuy def intercoalition wàllu yeew yi ñëpp jàppoon na ni du jàll parce que day nit nit ñi ñu retrouver wu liste département sangam yeew yi koy jiite ñu dugal ay député wàllu liste département sangam wala moo koy jiite ñu dugal ay député Yewwi ñu ne sax ba nit ñi duñu comprendre ndax suñ ñëwee fekk bulletin Yewwi ak bulletin euh, wàllu te war a voté wàllu foofu et non pas dina am ñuy jum toujours dem jëli bulletin Yewwi dugal te loolu dañ def ñuy ñàkk looy boor muy dëggit waaye gis nañu yàlla dafa ñuy sutura ba mu dox kon mën na am ay inconvénients wala ay lu ci nit di waaye mun na am tam avantage avantage bi mooy lan mooy bu ñu amee ñaari candidat wala ñetti candidat wala ñeent Sénégal yëpp xam ni kii mooy candidat principal bi ñeneen ñi nangu ko ñoom it day tax ñu mën a démultiplier suñu campagne fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñaari temps d'antenne wala ñett wala ñeent bu boobaa kenn ku nit na mën a jukki lenn ci programme bi te ñeenti candidat bokk benn programme commun muy programme bi nga xam ne mooy ma leen wax sax kon fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñetti temps d'antenne wala ñeenti temps d'antenne wala juróomi temps d'antenne gën a mën a waxtaan ak Sénégalais yi ci li nga xam ne mooy suñu programme te Sénégalais yëpp xam ni programme boobu mooy programme mille Sonko 2024 donte tere nañ ko mu nekk candidat ku déglu programme boobu déglu nga Ousmane Sonko quel que soit candidat bu ko jukki leen kon loolu dafa am solo ñaari option yi moo ci am te bu soobee yàlla buñ ci tollee dinañ leen wax ban mooy suñu décision ci ñaari yooyu quel que soit décision bi ma jël nag damay ñaan ñépp nangu ko ñépp euh, takk seen ndigg nangu li ñu day décider ba paré soobu ci liggéey bi quel que soit ku ñu tan ak ku ñu ndax projet passif bi du projet individuel bu dé man ma mëna renoncer à tout pour projet bi jital projet bi ba man mu jaral ma man ma baña fétalé sam bopp kanam baña def li tubab di wax égoïsme moy man rek man rek ba tax mu ñu xañ candidat kon gisuma keneen ku war a xalaatee neneen ak koo munti doon ñun projet bi lañu wax bu tànn jotee dinaa tànn ci anam koo xam ne lenn rek mooy doon sama yitte mooy projet bi xaw ma ci xarit xaw ma ci mbokk xaw ma ci leneen projet bi rek ndax li ñuy sacrifié ci àdduna projet bi moo tax ñu sacrifié te projet bu weesuwul njëriñu sénégalais yi nger jeex ci réew mi sàcc alal réew jeex fii al réew mi ñuy tay tay bitim réew di jël di yóbbu jeex fi ñu moomaat suñu bopp séddale bi ñu def ko ci nu gën mandoo ba kenn ku nekk jot wàllam ci réew mi projet bu weesu loolu projet souveraineté la avant tout c'est un projet souverainiste dooga nekk un projet panafricain ñu assumé ko kon jëmm yi amul solo de bu ci kenn jàpp ni à commencer par man mi toll nga ci foo xam ne bu dul yow rek neen la ku xalaatee noonu rek bokko ci projet bi donc buñ ci tollee ba ma ne nii laa ko xalaatee ba joxe samay orientation képp ku bokk ci Pastef képp kuy allié képp koo xam ne gis nga sa bopp ci projet bi nangul ni noonu la nga takk sa ndigg ñu jublu ci liggéey bi ndax bu ñu booloo mankoo rek ñi xajuñu si ñoom ah. bosu élection bi bu ñu booloo manko ak candidat bu munti doon man ngemb ko man parti bi ak allié yëpp ànd ci bosu élection bi du ma ne 18 heures waaye midi élection bi jeex bu soobee yàlla loolu nag dafa laaj kenn ku ne fàtte sa bopp ndam rek ndax bu ñu demee ba yàlla teg réew mi suñu loxo ba sénégalais wóoruñu ba dénkuñu képp koo xam ne liggéey rek moo la tax a jóg am nga ci sa place ndax état ku xam ni mu toll ak li ci nekk ci responsabilité président premier ministre ministre d'état ministre délégué ministre simple ministre délégué directeur directeur généraux chef d'agence ambassadeur xam nga lan ak lan ak lan képp koo xam ne am nga compétence te liggéey rek tax la jóg bu ñu yàlla dénkoon réew bi te nga bokkoon ci projet bi di ci liggéey daañu la dénk ne demal liggéey xool la nag boo liggéeyee te jaaral ko ci yoon ñu ne la jaajëf jox la promotion waaye képp koo xam ne safaan bee ko taxoon a jóg foog ne la woon mën naa mën naa continuer dama fiy nekkal sama poche dama fiy nekkal ay mbirum caaxaan wala awma compétence bu boobaa it imma duñ jox wala buñ la joxee ba pare doog gis si loolu ci ñu nangu ko rek mu jeex tàkk waye buñu yalla jox xol xëccu do am ndax nit dinañ la tek ngay liggéey liggéey ba yaay sonn mënatuma dama bu ngeen jël ma dem noppalu ci tuuti ndax liggéeyal sa askan liggéeyal yàlla la warul ànd bëgg-bëgg yu bari ci sa sa mbiru bopp sa poos ak sa yu demee noonu kon buñ ci tellee ba ñu def décision ne lii la damay ñaan ñëpp mooy na ci ñëpp ànd jàpp waaye buñ ci tollee ba war a jël ba jël décision boobu damay tàllal sama loxo sénégalais yépp nag sama mbokku acteur politique yi nga xam ne dañoo bokk opposition bi di leen tàllal loxo war nañoo dajale suñu doole ba nga xam ne li gars yi doon wax vote utile vote utile élection bi dafa war a gaaw te leer naññ waroon sax lam-laame ndax est-ce que gagné nañu premier tour am déet ndax bu ñu ne woon cinquante et un pour cent la am sax ñoom ñu la bañ carte gi ne demeewul noonu élection bi premier tour la war a jeexee à soixante quinze pour cent wala yu mel noonu nga xam ne kenn mënu ko werante te loolu dafa laaj Sénégal yëpp daje xaw ma ñaata candidat am de mën na am ñett lay doon mën na am juróom lay doon comme en deux mille dix neuf mën na am mu nekk dix wala quinze wala vingt wala trente yàlla xam. waaye candidat yi nu ñu bëri bëri bëri bëri ñaan bokk opposition bi yëpp mooy ñu def dajaloo def vote utile su ma opposition bi nag mooy képp koo xam ne teg nga ni fi ñu toll noonu buñ ci tolloo képp koo xam ne conseil nga considéré sa bopp comme opposant ci képp koo xam ne jàpp nga ni opposant nga talal nañ la ñu dajale suñu doole jëlee li lii ndax lii musiba la ci Sénégal xaw ma ci xaj ak seen Pastef nag dafa parti boo xam dañu am culture partage ak culture ànd ak ñi ànd nañu sax ba ànd ak ñoo xam ne ñëpp xalaatoon jàppoon nañu ni Pastef du ànd ak ñi bu ko defee gars yi gaawantu naan way moo fi newoon système bi moo fi newoon lii ànd nañu ba ànd ak ñoo xam ne ba ñuy ànd ñoom ñëpp ak ñuy naan ñi a leen di ay yéen a di boot di leen boot ba jox leen waaye yéen la ñuy njëkk a waaye ñu jàpp ni jamono jooju réew mi loolu la soxla woon réew mi dafa soxla woon ñu dajale taxañ ça a été toujours notre logique kon buñ ci tolli lañuy ñaan nit ñi ndax dinaa ko wax ak beaucoup de militaires nag mais la yàlla def loolu réew mi bu dee ñun ñi bokk opposition yàlla jox na Pastef doole goo xam ne du lu ñuy werante wala ñuy laam-laame loolu nag yàlla koy def du suñu mérite buñ ci amé mérite 10 la 90 yalla cent la ndax ñeneen ñi politique yépp ëpp lu ñu leen ëpp ñu leen alal du dañ leen gën judd du dañ leen ëpp jàng ñu leen sonn ci politique waaye yàlla mooy tudd lu ko neex bu loolu amee nag ñu dem ba toll ci réew mi foo xam ne ñun ñëpp jàpp nañ ni mënatuñu continuer nii te virage bi buñ ko ratee defe naa dina metti trop 50 ans yi di ñëw daf enjeu yu wër Sénégal mané buñu tollé Nyep ci lool nag ñepp lañu wara def preuve de patriotisme motax ñi wo ñepp ñepp am nañu xamni ñinga ne doon and ak Macky barki Demb ci walu politique ñu nekkon adversaire li léeg mu tàngaan jër waye buñu ñu ci Macky ndax man dama né ben adversaire la am ci politique moy président Macky Sall ak nguuram nga benen adversaire keneen ku may boole dafa fekk nga ànd ak président Macky sal a nguuram waaye ku fa jógee tey tey tey ñëw taxaw samp sa dënn damay opposé mën naa ànd ak yow ñu ànd xeex ndax islam bi ñu ñu ñu nit ànd naag yéefaru Màkka yi xeex yonent bi alayhi salaatu salaam rey ay nit yu bari ci ay saabaam ba mu ko mu tuub te keroog bi mu tuubee li mu andi ci islam ki ñëpp xam nañ ko ñoom walid defe naa moom lañ doon wax sayfullah islam amar amar ibn keroog bi mu tuubee la ne man duma bokk ci diine boo xam ne nit ñi dañuy làkkatu ci ay suusol di julli génn leen ngeen julli boobu juli ci kenn ñëmu doon génn juli ci màgg yonent bi doon ñaan naan yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari omar yi ndax jàmbaar la ñu woon waaye boobu ñoom tuubuñu ñu ngi ànd ak yéefari sonnaloon jullit ñi lool léeg sax ñu ñëw Eh, torturer len ci ñi seen jami ñu amone te ñu tuuboon di len torturer di len def lu ne yeen te mënon na len ci système ba lañu bok mais dafa ñaan yalla yalla ma ngi lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari omar ba kéro omar bu muy tuub xey demon bëgg faagaagal ay mbokam yu ñu leen ne tuub nañ mu dem fekkaleen fa dégg leen ñuy jàng alquran suma ma sorutu soratu bi ñuy bi muy déglu ba fi ñuy egg faalam annahu laa ilaha illallah mu dégg naa dafa xam daanu noonu la jaare tuub ne tey nag bis ni ki tey tuub naa kenn ku bokk ci diine gi mu bokk dootul nëbbatu di julli génne leen julli fu leen neex ba ma gis kan moo leen laal ci màkk kon loolu am na solo kon bu bu dara am rek ñëpp naan ñu woy moo ne woon système bi système bi man mi ko théoriser maa gën a xam lan laa jub ci système bi Le système c'est des règles c'est pas les hommes système c'est les règles c'est pas les hommes nit ne mu pas, pas, pas... nga Nous ko système bon te système bon, système bu nit bon bon bon bon d'accord le système est bon. Nous avons mu que système ko day te le système est système bon su doon malgré tout jubon na fofu bu ñëwee ci système bu baax mooy gën ci fa nekk fil islam xayrukum fil jahiliya defe naa loolu la xadis bu ñi gënoon ci yéen bi ngeen nekk ci jahil bu ngeen tubee ñooy gën ci yéen moo tax jamono maam ceddo ga ñi gënoon ci ceddo ga bu ñu tuubee ñëw ci nekk julit tam ñooy gën ci julit kon ñun tagal nañ suñu loxo ñëpp parce que tey Sénégal la ñuy wax waxuñu Ousmane Sonko waxuñu Massamba waxuñu Mademba ñun Sénégal lañu wax té mom rek lañu té te ku ñu àndal tam ci ngor ci njub ak ci bëgg réew wor buy am de du joggé ci ñun mu musa tok ba dégg passé wor na lolu amut ñun dé lañuy wor waye ñun duñu waraté parce que suñu deret moko mu politique jarul ñu lolu kon ñi ngi woo ñëpp boñ ci tollee ñu taxañ li ñu mën a dajale yépp ci Sénégal daa di pare ci ñi benn yoon parce que dafa jot lii mooy li mu doon andi ci introduction muy sama premier vidéo di leen gërëm di leen sant ci déglu bi di leen jaajëfal di ñaan yàlla nag lañ ci ragal ba tax ñuy préparer vidéo yépp yàlla bu mu am ci kàttan yàlla السلام عليكم ورحمة الله